mairie bu Anne donne donne amal cérémonie de don ñeel ay Touai, ak ndimbal ngir école di doom yu commune bu Anne fi ci école Kawbata Yasunari di école japonaise lolu yépp ci teewaayu sous-préfet arrondissement bu Grand Dakar conseiller municipal, yi directeur d'école parents d'élèves lui fait ak ade ak association yi lolu nak nek xew-xew bu ñuy amal ci lu tollu at d'abord dañuy remercier képp koo xamante ne yaa ngi jàpp ci éducation fii ci commune Hann-Bel-Air dañ ciy tàmbali man samay naataangoo élu parce que c'est vrai que maire mooy jiitu maire mooy wax toujours mais maire dafa am équipe boo xamante ne maire day amee xalaatam bureau municipal amee xalaatam conseil amee seen xalaat et ñu gis ne que tey effort yi nga gis ñu di def parce que nag lii fi am avant amul woon il y a cinq ans daanuñu woon joxe bourse il y a 5 ans mieux amul woon il y a 5 ans dans nañ joxe ay y a du genre fourniture yi nga que ne moom nañuy joxe loolu fait indi forum de l'éducation y nañu deux jours nous avons invité invité partenaires associations, parents d'élèves directeurs, directeur ñu avons ñu que ñu avons lan mooy ñu diagnostic Nous lan mooy problème mu éducation fii ci commune Hann et quand on a fait ce diagnostic nous avons ci après deux jours ak document stratégique document stratégique boobu bañ ko topé,

pour atum ren bi nak ndimbal bi danaka mi ngi toll ci lu upp juróom fukk million ci suñu koppar ak lëkkaloowu courel bi di union départementale des mutuelles de santé de Dakar ngir gëna mëna amal prise en charge élèves yi ak bépp talibé bu yéwo fi ci al journée tay rek valeur 52 millions 500, moy 1500 bourses pour élèves mais bolé ci également ñu fourniture scolaire yi nga xamné distribuer nañ ko mais ci bourse yi avantage biñ ci am moy biñuy identifier les bénéficiaires du maire mo teju ci bureau wala Matar Diaw adjoint au maire wala altiné wala ben conseil. ne dugal leen leen ma déedéet dafa am ben commission bo xamantene IAF inspecteur mom moo koy superviser école bu ci nek dafa am sa quota yéenay identifier les bénéficiaires ñun lén rek nañ ci am moy ñun ño décaissé ñun ño voter ñun ño indi mandat ñu signé tay ñu jox ko élèves yi partenariat bu dëgër moo indi parce que dañu gis ne que daaw bañu joxé 1000 bourses amoon na yenen cas yo xamante ne identifié ne waroon nañ leen ci mëna bolé boole dem débat d'orientation budgétaire avec les conseillers ñu tok waxtaanee ko te ba ñu waxtaanee ak ñoom dañoo gis ne que wax dëgg yalla fofu war nañ mëna def effort. et lolo tax ren ñu daldi di à 1500 et pourtant en Bel-Air y a 5000 élèves au niveau des écoles publiques ce qui veut dire que ben pas la par rapport à yenen yo xamante war nañ ko mëna def benen bi nga xamné aussi euh jarna leeral moy surtout qualité enseignement dafa am lo xamante ne Hann suñu défi parce que juróomi at ci gannaaw école yi problème la won bâtiment yi nekul won dans des conditions euh, système éducation bi aussi c'était pas trop ça mais biñu togué ñu waxtaan ñu né ah wax deug yalla war nañu mën en tout cas xex de telle sorte que image publique bi nga xamné avant da ngay tok sa kër di génn ay résultats nga gis Limamou Laye mu jiitu et pourtant lañ doon gis ci Limamou Laye mooy école banlieue banlieue bi kooku du wandar dara la ca amoon solo mooy lañ daan dugal ci bopp xale yi parce que bu ñu demee examen kii màggee Dakar Plateau ak nga xam ne ma nga màggee euh, Guédiawaye ak Pikine yëpp benn la mais ñu gis ne que résultat yi nga xam ne tey moom la école bi am poussé na parents yu bare à ce que ñu ne ah ñun day wax dëgg yàlla war nañ mën décharger wu de ces charges yoo chaque fin du mois ñu fayal suñu doom privé alors que public bi baax na daanaka seen résultat sax gën mais mieux que ça gratuité fourniture yi nga xam aussi mi nga am ci école donc loolu comme je dis dama ci centre bu baax baax. mu bokku ci leneen lu mu ardu moom Babacar Meng muy ñàkkum lycée bu commune bu Hann te nekk lu ndaw ñi di sàkku daanaka ay ati at ba léegi. vous savez l'éducation c'est un c'est dafa transcender plusieurs étapes. Nous, au niveau des mairies nous avons jox ce ne école primaire si vous faites ne lycée kese la Belair Bel-Air na organiser wu voter budget pour que nous puissions a taxaw salles ay salle de classe ci un établissement mais ce que nga savez aujourd'hui, c'est ce nañu nekk di ah ministère de l'éducation euh, j'espère que allure bi nga nous mom d'ici quelques temps nous mëna annoncer vraiment la bonne nouvelle parce que nous aussi on est une institution sommes que euh, sur la place publique di RNT. liñu wara def dañ koy def mais liñu japp ci lycée c'est que c'est un impératif pour Anne parce que abandon scolaire c'est ñu wax dafa bari man dama comme argument la semaine dernière que lycée bobu ñu def dama japp né même par rapport à cette immigration clandestine parce que boo xoolee xale yi dem mooy ñu toll ci niveau boobu mais bu fekkee ne jànguñu egguñu ci dara effectivement dafay loo xamante ne c'est un problème nous sommes une zone côtière ni ci géej gi nañu on pense que xam nañu lépp ci géej gi alors géej mooy milieu boo xamante ne doo ko maîtriser jamais donc loolu en tout cas on espère dans les semaines à venir pouvoir concrétiser li nga xam ne euh, moom nañu yaakaar ci loolu nañu nekk mais en tout cas euh, bëgg nañu que en Bel-Air am lycée